ay mairie yoo xam ne tey boo xoolee mairie yi ci bëri dafa changé boo xoolee élection yi passé mairie yu bëri changé na donc ñi doon liggéeyal démb ak ñi ñuy liggéeyal tey daanaka bokkul te ñun euh, mairie yi ñooy suñu bunt ci dëkk yi ñuy dugg di liggéey mënuñu def dara ci dëkk sans ñu jaar ci mairie yi moo tax ñu ne dañuy or dañuy dañuy dem seeti suñu partenaires yi waxtaan ak ñoom ne leen ñun kat dañoo bëgg a xool mairie bees yi ak élus yu bees yi nga xam ne ñëw ne nan lañ leen accompagner pour que lii nga xam ne jëm na ci wàllu environnement jëm na ci wàllu aalam ak nan lañ koy sàmmee nan la ñuy fexee ba former leen ci ñoom ñu comprendre ko comme ñeneen ñi fi nekkoon tamit dañ leen former bañ comprendre ko ñoom ñu kontaan ci loolu trop appuyer ñu ñun tamit ñu dem gis mairie wax leen ko ñoom ñu kontaan ci ñu organiser atelier atelier boroon nañ ko organiser bu yàgg sax mais dafa moo tax mujjuñ ko moo tax ñu pousse ni am na fukk ak juróomi collectivité yoo ñu ngi fii donc ñëw nañ euh, dañ leen di former ci lépp lu jëm ci wàllu aalam ak ci nan la ñuy aaree aalam parce que gis nañ ne ñu bees leen ñu ngi doog a ñëw te mbir boo ci bëggee dugg foog nga xam ko moo tax ñu ne xam-xam bu ndaw boobu noonu foog ñu jox leen ko ñoom ñu xam bu ñu comprendre rek ñun suñu liggéey day gën a yomb dinañ leen dimbale mais dinañ dimbale suñu bopp parce que ñoom bu ñu comprendre lan mooy aalam ak fan lañ bëgg a jëm ñun du ñu mën a dem te ñun tamit euh, mënuñu comprendre ba pare bëgg a liggéey ak ñoom te ñoom comprendre moo tax ñu ne nañ jéem a harmoniser position yi a xool nan la ñuy def pour ñëpp xamandoo li xew su ko defee liggéey bi day gën a yomb suñu bopp mais dimbale leen ñoom aussi te ñoom lu ñu gën a leen di gën a dimbale ñuy def au niveau de la commune ak ci plan yi ñu war a def te liggéey bi du yem fii kese parce que dañuy liggéey ak ñoom non seulement former leen mais dinañ leen accompagner aussi ci yenn projets yi ñuy am ak ci yeneen affaires yu bari yi ñuy am ñun dañoo yàgg liggéey ak commune yi nag ñun yàgg nañ liggéey ak commune yi trop donc dakaar bokk nañ ci organisation yi nga xam ne bokk nañ ci yi gën a bëri mouvement yi gën a euh, bëri ay activités yu ñuy def sur le terrain donc yàgg nañu liggéey commune yi tey commune boo dem am na garab bu ñu fa jëmbat sax muy Dakar yëpp amul benn commune booy dem ci Dakar te dugg fenn ne la lii ñoo ko fi def wala léegi ñu mos nañ xam nañ leen bu baax yàgg nañoo liggéey ak ñoom donc am na benn bu mag bi ñu defoon bi ñuy waaj a def euh, projet bi bi ñu ko defee ci lañ gis ne communes yi nekk Dakar yëpp a soxla ndimbal communes yi nekk Dakar yëpp a soxla ku leen accompagner parce que Dakar déjà moo vulnérable ci lañ nee nag léegi dañuy nan la ñuy fexee pour former commune yëpp ñu ne léegi pour def loolu dañuy commencé tànn di former ndànk-ndànk ci lañ dem gis benn partenaire partenaires yi accepté loolu ñu jël ñaar ba ñetti projets yu ñu am yoo xam ne dafa concerné communes yi boole ko mën a liggéey liggéey boobu léegi loolu dinañu permettre ñu jël comme commune yi ñu am actuellement formé leen fii ak quelques mois ñu jëlaat yeneen commune formé leen fii ak quelques mois ñu jëlaat yeneen commune formé leen donc critère bi aussi ci vulnérabilité Dakar lañ ko teg ci vulnérabilité communes yi donc foofu lañ ko teg moo tax ñu tànn communes yi mais lu jëm ci wàllu formation bi moom communes yëpp la ñuy léegi nag am na ci ay projets yu spécifiques yoo xam ne dafa concentré ci yenn communes yi am na ay dégradation soit ci gestion des déchets wala ci euh, érosion côtière wala affaire yooyu noonu. aw mooy dérouler projet bi mettre en œuvre projet yi parce que comme li ma la wax ay ñaar ba ñetti projet lañ boole.

personnalité am forcé wuñu kenn dañuy ñëw xool lim la mooy sa priorité ñu xool na lañ la ci accompagner donc c'est un peu ça ay ndaje ay de matériel ay activités de terrain yu yu yu bëree bëri bëri yoo xam ne bëgg nañ ko def ak commune yu bëri waaw en fait ñu boole comme li ma la wax rek ay projet la ay budget yu mel ni ay ambassade Pays-Bas ni Enrich Ball on a ñoom quelques financements ak ñoom financement yooyu noonu la ñuy dajale jël ko mu gën a am doole par exemple tey bu ñu yemoon ci benn partenaire rek formation bi ñetti commune ñoo koy def dañoo dajale partenaires yu bëri budget bi gën a rëy ñu mën former fukk ak juróomi commune bu ñu jógee fii tamit boole boobu la ñuy defaat pour mën a former waat yeneen commune ak yeneen commune ba dajal Dakar donc c'est un peu te budget bi tamit yemul ci li ñu li ñu jot a kese donc ay budget la yoo xam ne dañ koy continuer di wër pour liggéey bi ñu mu continuer di am donc c'est c'est c'est un peu